ba tey ñu xañ ko njabootam lu mat ñaari weer ak lu tegu yii mooy andi fitna ci dëkk parce que jamono jooju ay nit ñu sàcc xaalisu réew mi barki démb dégg ngeen ab géwélam nga xam ne riite ak xalam lañ ko xamee woon tey mi ngi yor ay milliards denc ko ci ay chambre ñu koy sàcc te of nag waxul sentif waxul procureur waxul kenn waxul parce que géwélu Macky Sall la est-ce que loolu jaadu na ñu jàpp koo xam ne lañ koy jiiñ mooy nee nañu dafa def publication ci page Facebook ne ko ràpp ci kaso bi parce que ñii nga xam ne ñoo yor agenda góor jigéen ñoo ko sant Macky Sall na bàyyi doomu jàmbur mu dellu këram ñetteel bi ma bëgg a wax parce que dafa am lu ma gis dañoo am nag daje bu am solo daje bii artu la ci makisal waaye tey lañu ñu suñu pré campagne wala suñu campagne kon dama bëgg ngeen déglu ma ci lu am solo dañoo def coalition boo xam ne diggante grande coalition wàllu Sénégal la nga xam ne président Abdoulaye wadd moo ko jiitee ak suñu coalition ñun muy Yewwi Askan Wi nga xam ne Khalifa Ababacar Sall mooy président conférence des leaders. li ma bëgg ngeen jàpp yéen mooy dañoo dem ba daj ba xool ba xam ni ñun ñi ñëpp nag benn problème lañu am benn noon lañu am te muy noonu Sénégal muy Firawna Sall ñu xam ni déglu leen ma rekk ñu xam ni fii rek ñu xam ni fii rek xam ngeen may ma may ma may ma may ma ñu xam ni xeetu élection yi ñu jëm muy bi ñu jógee ak bi ñu dëgmal dafa di élection yoo xam ne raw gàddu la moo tax ñoom li leen gën a soxal mooy nañu fexe ba opposition bi continuer di diviser wu bu ko defee ñu ne Ousmane Sonko moyetul PDS PDS moyetul xalifa xalifa moyetul PRP ñun ñu continuer di tasaaroo ñoom ñuy bennoo di ñu duma continuer tey réew mi di ci def leen neex looloo tax ñu ne nañu ànd kenn ku ne ci ñun yor na kuréelam kenn ku ne ci ñun yor na projet am kenn ku nekk ci ñun yor na ay ambition am waaye su dee dañoo bëgg Macky Sall continuer toog ci bopp réew mi nañu continuer tasaaroo ku nekk nekk topp sa yoon kon bu ngeen d'accord ngeen ni ànd bi lu war la kon dama bëgg a bis ni tey ku fi bokk yeewi na jàpp wàllu ku fi bokk wàllu na jàpp yi xam nga ndax lan ñun ñooy ànd campagne gis ngeen campagne bi yeewi du jaar nii wallu jaar ni ñun ñooy bokk campagne ndax département boo dem su dee yi moo fa jiitu walloo ngi ci gannaawam ànd ak moom ci list bi bu dee walloo fa jiitu yeewee ngi ci gannaawam ànd ak moom ci list bi kon suñu destin daf yàllaa ko boole. kon bis ni ki tey buleen def xaj ak seen diggante yeew Yewwi ak wàllu benn list bi la loolu nag moo tere nelaw Macky Sall lii moo tere Macky Sall nelaw ngalawaay buñ ko yàq buñ ko yàq nañ ko defar nañ ko dëgëral nañ ko dooleel bu leen kenn yóbbu ba ngeen naan tey ñun PDS nii ak nii kon ñun dañuy def nii ak PDS wala ñun diw nii déedéet fii mu toll nii benn bi la ak benn objectif mooy 31 juillet heure bii bu ñu commencé wàññi ñëpp xam ni Macky Sall abal nañu ngeen may ma ngeen may ma ngeen may ma ma rendre hommage président Abdoulaye Wade dinaa ko rendre hommage xam ngeen ndax lan man waa PDS yi ñu ci bëri miinuma leen de ñi ma xa ñi ma àndal assemblée xam naa leen ñenn ñi ci fan yii ak suñuy waxtaan xam naa leen waaye président Ablaye Wade am na lu tuuti lu ma xam ci moom ndax nekk naa man mii ci jafe-jafe jël sama téléphone woo ko boobu mu ngi Qatar ma ne ko lii de am na mu ne ma defal conférence de presse boo demee neel Ablaye Wade nee na ma lii wax ji jeex te bi ma ko defee noonu la wax ji jeexee kon tey dinaa ko delloo njukkal te ba léegi munoon na bank ay yoxoom ndax ay atam laaj na ko waaye mi ngi ci combat bi te dina ñëw jàpp ci combat bi kon lii li tax ma koy rendre hommage te dinaa ko def pour Abdou Diouf def ko pour Senghor xam ngeen ndax lan ñooñu yëpp kenn mënu fee tere nit nekk candidat xañ nit candidature ci Macky Sall xewee fii senegal limal leen ma kenn koo xam ne Abdoulaye Wade wala abdu juuf wala Senghor tere na ko mu nekk candidat lan moo tax ñu war a nangu Macky Sall def ko da koo def ci Karim Mbaye sa Wade ñu seetaan mu dellu si def ko ci xalifa Sall mii ñu seetaan mu fas yéene woon ko def février 2021 ci Ousmane ko génne ko du fi amee est-ce que loolu est-ce que loolu ñu ko bañaloon ci jamono jooj dinañ ko ko nangul tey est-ce dinañ ko nangul Macky Sall moom nee na dina dem élection législative fii senegal ñi jiite PDS duñu bokk ñi jiite taxawu senegal duñu bokk ñi jiite PASTEF duñu bokk ñi ciy jiite ànd duñu bokk ñi jiite PRP duñu bokk waaye moom ñi mu àndal ñépp te ñuy jiit dinañu bokk est-ce que ko nangu kon kon wax ji foofu la Macky Sall tey ma bëgg a wax ak Sénégal yëpp may leen ma rek le Sénégal est en danger te benn danger moo am ci Sénégal mooy Macky Sall fii léegi Macky Sall ngi jiite Sénégal jàmm du am Sénégal stabilité du am Sénégal lan mooy bilan Macky Sall ci Sénégal ma wax leen bilan Macky Sall lan la Macky Sall delloo na gannaaw les liberté politiques tëj na ñoo xam ne defuñu ko dara ànd ceeg coxar bu kenn mësul gis tëj na ma euh, euh, Karim Wade tëj Khalifa Ababacar Sall doon def ay pexem pour tëj Ousmane Sonko ma wax leen ni ma wax leen ni Barthélemy Diaz mii toog fii daje nañ fii ci place bi daaw defe naa mu ne septembre la Macky Sall def plan pour tëj Ousmane Sonko ma ne ko ba Barthélemy dalal naa sa xel fii rek ñi ngi dund Macky Sall du tëj Ousmane Sonko su ko Ousmane Sonko tëjul. téeméeri makisal ak juge ak administration ak police ak gendarmerie am ñoo tëj kaso. waaye ma wax leen ma dellu wax leen tamit. ma dellu leen tamit li ma leen di wax am na solo de déglu ma dama ne Barthélemy Diaz mii une minute rek déglu leen ma dama wax merci merci may leen ma une rek balaa muy lëndëm ñu te ñu tënk affaire bi dama leen wax Barthélemy Diaz mii xam ngeen luy pexe Macky Sall ci moom keroog li ñu génn mobilisé wu moo tax ñu tiit dàq affaire bi ma yéegal leen ni xam ngeen lu ñu nar ne ko avec sursis pour nangu mairie dakaar ci loxoom ma ne la Barthélemy mairie dakaar bu soobee yàlla juróomi at yi di ñëw maireu mairie Dakar Barthélemy tooy Diaz day tudd bis bu ne day nangu mairie Dakar ñu nangu palais bi ci moom amul lu ñuy lam kon lan mooy lan mooy lan mooy bilan Macky sal gannaaw tëj ak complot ak sàcc alalu réew mi Cheikh Tidiane Dieye wax na ko léegi Macky Sall lan la promettroon sénégalais ci corruption fan la ñu toll ci corruption tey ci senegal Sénégal xaalisu réew mi yépp mi ngi seeni i coffre gis nga bis bu manifestation amatee ba ngeen dajji seen i kër ay milliards ngeen fay fekk ay milliards yi milliards ci yu ñu jëlee ci keesu état bi ndigal gaa ngi ñëw mais leen ma ñu terminer. ma rek lan mooy bilan Macky Sall mooy suñu pétrole ak suñu gaz Macky ak rakkam sàcc nañu ko jaay ko ci anam goo xam ne Sénégal daanaka amu ci dara bind naa ci téere tey la gën a actuel te mi ngi continuer di jaay pétrole bi ak gaz bi ak zircon bi loolu mooy bilan Macky Sall lan mooy bilan Macky Sall mooy hôpital bu baax amul Sénégal suñuy doom a ngi lakk ci biir hôpitaux yi Macky Sall yëgalu ko yaramam moom jàpp na ni lépp xaalis la fu ma dem rek naa joxe xaalis wax ji jeex na école publique amatul Sénégal est-ce que xam ngeen ni jamono jooju tey jii may wax ak yéen fële ci kanam RTS dem na lebi 33 milliards pour ne dafay tabax building building 33 milliards bu mu leb ak banque boo xam ne rakkam moo ko lancé woon muy banque de Dakar pour ñu tabax 33 milliards building ci boobu jamono hôpital bu baax amul Sénégal loolu mooy bilan Macky Sall Macky Sall faalewu leen am ngeen liggéey wala amu leen ko du yoonu Macky Sall yéen a ngi faju am déet yoonam newu ci yéen ngi am problème ñi ngi leen di agressé ci mbedd bi yoonam newu ci école bi tëj na yoonam newu ci Macky Sall moom dong ak njabootam ak géwélam la tal moo tax lii nii suñ ko bàyyee mu romb lii nii suñ ko nangulee Macky Sall nañu xam ni am nañu ab firaw na boo xam ne 40 yi di ñëw moo fiy toog ba dootul mën a dox may wax tamit ne waa Bennoo Bokk Yaakaar temps yëpp dégg nañ leen ñu ne dañuy menacé Bennoo Bokk Yaakaar yem leen duñu seen moroom xajuñu ci yéen Benno Bokk Yaakaar te nag déglu leen ma bu baax seen wax yëpp seen wax yëpp mooy l'État n'a qu'à prendre ses ñoom ñooñu où sont-ils s'ils sont nañu génn dañ ñëwoon dañuy def contre manifestation anañu muus sax muus bu marron beige sax doo ko gis ci tali bi ñële la yaakaar alkaat yi ñoom lañu yaakaar balaa may dee ñu dem génnee seen relique politique yépp ay Moustapha Niass nga xam ne toute sa vie il a sucé le sang du peuple ay zumbi politique Idrissa Seck nga xam ne zumbi la kenn xamatul fu mu ne ay Aminata Mbengue Ndiaye yéen ñii balaa ngeen di dund balaa ngeen di juddu yéen ñi nekk fii Aminata Mbengue njaay ak Moustapha Niass ñi ngi doon dundee état senegal ba tey ngeen toll ni ñi ngi dundee état Sénégal dinañu dem bay doxee békki dañuy dundee état senegal ñooñu tey ils ne représentent aucun avenir pour le pays ils ne représentent aucun espoir pour le pays suñu desee woon tuuti ngor dañuy retraité dem toog yor seeni kurus te bàyyi réew mi ndax lu ne am nañ ko ci réew mi ñooñu tey ñooy génn naan dañuy menacé dama ne jàmm la ñu woote waaye jàmm ñaar a koy dox ñi ko séq Macky Sall naafeq gi ne ci moom ma koy wax nag suñu papa suñu yaay yi toog ci kër gi parce que léeg-léeg dañ leen di nax soo waxee ñu ne waa ji dafa yaru ab mii kër la xam nga mii kër koo gis mu dem ci télé yi di saaga Macky Sall ko jox xaalis ne ko demal saaga Ousmane Sonko bu paree mu recevoir ko palais moom mooy recevoir saagakat palais de la République moom Macky Sall ñun de kenn mësuñoo dégg ñu saaga waaye suñu fulla dinañ ko wax ba mu mat sëkk te lu ñu wax loolu la ñu gëm kon may wax sénégalais tey le Sénégal est en danger te benn danger moo la am mooy Macky Sall lan mooy bilan Macky Sall lu ñu musul xam Sénégal tey ngay gis Sénégal ku jóg taxaw saaga nit ci waasoom ci etni bu mu bokk ci région bu mu bokk tey ngay gis ku dem télé wala dem rajo wala dem ci site internet saaga nit dugg ci vie privée am saaga ndeyam saaga baayam ñuy dund ak ñu dul dund tey ci Macky Sall la amee musul am senegal lan moo raw loolu ci violence te ñu koy def ñëpp mënoon nañ ko régler ci benn seconde mënoon nañ leen régler ci benn seconde musu leen musuñu leen jox ndigal ne leen attaqué leen loolu mooy bilan Macky Sall waxu waxu ethnie waxu ethnie waxu tarixa waxu diine sengoor dem na ba jóge fi musul am Sénégal Abdou Diouf dem na ba jóge fi musul am Abdoulaye Wade dem na ba jóge fi musul am waaye tey gis ngeen fi Sénégal toll mënuñoo am président bu yées Macky Sall fii ci Sénégal moo tax Macky sal moom mooy des ci réew mi ñu ñu jóge fi wala ñun ñu toog fi moom mu jóge fi waaye mënatul ne may wax tuuti it ndigal gi mooy mujj xaarleen rek may wax tuuti nag ci administration ak justice administration ak justice wata wat réew mi moomu leen ko de ku jàpp ni nee nañ la monsieur le juge solal la ab tuus bu xonq jox la xaalis bu bëri jox la ay woto nga bëgg taal réew mi yow la ñuy taal loolu dina jeex Sénégal de conseil constitutionnel juróom ñaari nit moomu leen nit ñi bu leen ñu fontoo juróom ñaari nit war taal réew mi loolu est-ce war nañ koo nangu ñoo ngi woo justice nañu delloo ci seen xel parce que peuple bii moo moom mooy souveraineté moo voté loi yi à l'Assemblée nationale quand le peuple dira non et il déjà dit non ku taxaw ci kanam peuple yi peuple jaar sa kaw kenn mënu ci dara may wax tam waa force de défense et de sécurité yéen ñele toog na le bu leen topp seeni kilifa général Moussa Fall bu leen ko topp parce que intérêt boppam moo tax ñu mu leen war a jox ay ndigal yu ngeen warul topp ci réew mi ngeen dëkk tey intellectuel ngeen bu avez fait les bu vous avez été à l'université xam ngeen ni Macky Sall li mu leen def loo du dëgg xam ngeen ko kon buñ leen yebal naan leen dem leen mate dem leen dóor dem leen torturer ay nit ngeen du ngeen ay bàyyi ma te lu metti ci réew mi yéen la gën a méttee su ngeen liggéey ba wàcc da ngeen dem seen kër léeg-léeg dépense bu ngeen jox seen jabar sax du ngeen ko am kon bu ñu leen transformer en des objets de répression bañ leen loolu bu leen ko nangu quand un ordre est manifestement illégal il faut désobéir loolu la yoon wax commissaire yàgg ak général Moussa Fall nee ngeen yéen ak ñuy surveiller ñu ngi leen di surveiller ñu nit ci dëkk bi ngeen dëkk ci dëkk bi ngeen dëkk ni ñu amee njaboot ngeen amee njaboot yéen ak ñuy surveiller ñu ngi leen di su ngeen ñu menacer ñu menacer leen parce que nag dafa doya ah. kon li ma bëgg a wax ci gàttal mooy Yewwi Askan Wi bu listam bokkul ci élection yi Macky Sall du bokk ci élection yi bu bokkul ci élection yi Macky Sall du bokk élection yi te désormais nag li ma leen di wax œil pour œil dent pour dent bu leen njëkk a dóore de bu leen njëkk a dóore bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen dóor xam nga nag la loi xam nga lu mu wax loi bi bi ñu vote ak téere yi ñu gëm xam nga lu mu wax dafa ne buñ la dóoree booy fayu nanga nga fayu luy tolloog liñ la dóor waaye dama leen ne buñ leen dóoree da ngeen di fayu ba bis bu ngeen ko defee dóor dootul am kon à partir d'aujourd'hui dama bëgg mu doon une mobilisation permanente Macky Sall son pied notre pied jàmm dootu ko am fii 16 mois yi di ñëw Macky Sall duñ ko may jàmm fu mu génn nañ ko fa fekk fu mu dem na ko yooxoo parce que dafa jar yooxoo matul président il est illégitime Benno Bokk Yaakaar gannaaw force de défense et de sécurité ay nervi la ñu yaakaar nervi ban nervi moo mën a ñëw attaqué lii te nervi yëpp nag maa ngi leen di mettre en garde ndax xam nañ fu ñu dëkk xam nañ fu ñu dëkk xam nañ ñoom ñooy ñan nervi yëpp nag recensé nañ leen nervi bu fi attaqué te boobu lay gën a attaqué ma daaneel nag wax leen nii nee nañu am nañu infiltré suñu manifestation bi ñu ngi wax naan ndigal bi mooy pu ñu paree fii dem pale demuñu palais amuñu benn soxla ci pale ndax bu dee ki fa nekk buqat na buqat boo xam ne bu ñu nee manifestation mu daw ci Macron laqatu jarul ñu fay dem lu am après manifestation bi may jël opinion bi yëpp à témoin jógewul ci ñun bu manifestation bi jeexee kenn ku ne fa nga ne na nga fa ñibbi tranquillement parce que xeex bi xeex bi day tàmbale kese ah. te ñu Macky sal fii ci Sénégal 16 mois yi ko dese ci nguur gi bu ko buggee de yeggali ci jàmm na respecté sénégalais yi ndigal gi mooy liste Yewwi Askan Wi ànd ak liste wàllu Sénégal dañuy ànd ci élection bi et au 31 juillet au 31 juillet Macky Sall bu amee 50 députés assemblée nationale record lay doon bu ñu génnee ci loolu nañu xam ni enjeu bi du rekk dem jël assemblée nationale ndax buñ ko jëlee coow li dina bëri de ndax commission d'enquête d'enquête parlementaire yi na takarnase sàcc pétrole bi sàcc suuf si sàcc alal bi sàcc budget bi yëpp dina leer waaye ñaareelu enjeu bu am solo bi xam ngeen lan la xam ngeen lan la donte loolu soxaluñu parce que constitution Sénégal fi mu wuteeg bu bu bu bu bu les maîtres de Macky mooy soo demoon France c'est le premier ministre qui définit la politique de la nation fii nag dañu ne c'est le président qui définit la politique de la nation mais li leer ba leer mooy suñu gagné assemblée nationale coalition wàllu yeewi ñooy former gouvernement daal di commencer redresser Sénégal avant même 2024 te bu boobaa nag te bu boobaa nag li ma gëm mooy Macky Sall dina takk ay kaakaam ñibbi ñibbi ñibbi ñibbi kon bu ñu caaxaane lii bu ñu nangu la forfaiture du conseil constitutionnel Antoine Diome du ma wax ak moom parce que ab poussin bu immature la ñu teg ko fu ñu ko warul teg est-ce que pare ngeen pour combat boobu lan la leen combat boobu jaral lan la leen jaral laa bëgg a dégg lan la leen jaral kon bis ni ki tey restez à l'écoute parce que dinañ leen jox ay instructions yu leer yu limpide parce que mbir mi jeexagul. bu dee dem nañu ba gis ni nag nee nañu liste nationale Yewwi Askan Wi du bokk ci élection yi fii Sénégal élection du fi am wala wala suy am dégg leen ma wax leen wala suy am fépp fu Benno Bokk Yaakaar génn ne day dem wote ji def leen ak ñoom noonu foofu laa yem